أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بدحت ببسم الله أمر محمد الله وبدء ببسم الله يحمد مولاه بدحت طالبا من الوهاب عونا وتوفيقا إلى الصواب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقرة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي يجعل ما يشاء فيما يشاء والصلاة والسلام على من لا يبلغ مده إنشاد ولا إنشاء سيدنا ومولانا حس الحرب وسينة العجم وعلى آله وصحبه الفائزين بالكتاب الذي كل كافر wa jaahidin aljam maa ngi tàmbali sama wax ci turu sunu boroom di wax bismillahi rahmaani rahim di sant sunu boroom moom mi nga xam ne mooy def lu ko soob ci li ko soob waaye maa ngi julli di sëlmal ci Seydina Muhammad mi nga xam ne mooy tedd ngay arab waaye mooy taarub ñu dul arab Seydina Mohamed bi nga xam ne aw taggam lu nit matal matal ciw tagg doo jot aw taggam dëgg-dëgg ni ko Sëriñ Tuubaa waxee ci raaya wa huwa najibu allati fi wasfi xalqihi wa xuluqihi qiila tasjaahun wa ashaaru ba àgg ci ahlul fasaaxati turan bi sanaamadahu waaye wa laysa yutraku bil akwaabi tayaaru lu nit tagg tagg Seydina Mohamed tagg wa des ni ko sëñ Tuubaa waxee mu baaliqun fi matihi kaman damas wa mutanibun fiihi yura kaman damas kuy jéem a jotal ci tàgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi loo jotal jotal boo defee boo comparé li nga li nga tagg ak li des ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi li nga tagg day jëkk loo ci jëm a détaillé ci tàgg Seydina Muhammad dangaa mel ne ku résumé kon ñoo ngi julli ci kooku julli googu nag yàlla naw ba àgg ci ay ñoñam ak i saxaabaam ginnaaw loolu maa ngi nuyu mboole mbokk yëpp nuyub lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa tey nag ma am mbégte waxtaane xasiid مخدمات الأمداح في مسائل مفتاح موي خسيلة غوك سرين توبا مكو ديف مقدمات الأمدا موي لو نيو جيتال تي اي تاغ تي ماي كيغا موي تيابي باي اوبي ماي سون بروم اك غنيلم اك خيوالم اك ليرام موي لي بريميس des zélos sur les mérites de celui qui est lakkale kon xasida googu di muxaddamatul amda fi masayal miftah salla wa sallama halil fata bi alihi wa sahbihi kama malal aqda xasida googu lañ bëgg a waxtaane incha allah nag danañ ci xeet yu bare bare ci anam yu bare bare kem lu ci waxtu yu may danañ waxtaane ci taarixu xasida gi istuwaaru xasida gi kañ la ko sëñ bi way fan la ko waye ci at mi ak wi waaye danañ waxtaane xasida gi gan xeet la ci xeetu xasida yi ndax xasida yi dafa bari ay xeet danañ waxtaane ban xaaj la ci xaaju xasida yi ndax xasida yi ay xaaj lañ danañ wax ban baxaru la ko sëñ bi woy ñaata bayit la ñaata baat la ñaata araf la incha allah lépp luñ ci may waxtu yu may danañ ko waxtaane danañ waxtaane mawdu bi nga xam ne xasiida gi moom lay waxtaane maanaam li composé xasiida gi waaye danañ waxtaane tamit ci technique xarañte bi nga xam ne sëriñ bi def na ko ci biir xasida gi ak mustaxsanaasu lafsiya wal maxnawiya rafet rafet yi nga xam ne ci baat la ak ci maxnaa ne ci biir xasida yi xasida gi danañ ko waxtaane danañ waxtaane tamit jinaasa bi ci nekk iqtibaas bi ci nekk balaaxatu tasbix bi ci nekk wal kinaaya wal istixaara yooyu yëpp nekk ci lañ ko waxtaane ba ci taswirul fanni bi ci ne ak lusuum maalaa yal sam bi ci nekk ak raq raqmi maanaam ci wàllu numérologie li ci nekk te eh, yéeme lool danañ ko waxtaane waaye danañ waxtaan tamit ci ngëneelu xaside gi ak tedd ngay xaside gi ak darajay xaside gi waaye danañ waxtaane tamit at taraabutul maani lil abwaab sëriñ bi xaside gi def gi mu ko def ay bunt ba noppi lënkale bunt yi ba ni xasida gi jeexee loolu dañ ko waxtaanee ak ni mu lënkalee njëlbeenu xasida gi ak njeexantalu xasida gi danañ waxtaanee xasida muxadamaat am daa ban xaaj la ci xaaju xasida yi ndax xasida yi ay xaaj la sëñ Tuubaa waxal ko danañ waxtaanee xasida gi ban baxru la ñaata bayit la moom xasida muxadamaat am daa ñaata baat la ñaata araf la incha allah danañ waxtaanee tamit ci thème bi nga xam ne moom la xasida gi di wax. تماي مخدمات الأمدا ما نام لكمبوس خسيدي أك مد مومو أك كونتني خسيدي وعيد أي وقت أنا خرنت أك تكنيك بين خمسة سنين بدفع نقطة كبير خسيدي دري وقت أنا تميت المستناس المستحسنات اللفظية والمعنوية والشهرية رفعت ديك خمسة سنين بدفع نقطة كبير خسيدي مخم بعديلا مخم محنايلا مخم ويلا دري وقت أنا جناسة بنك كبير خسيدي lu soomu maalaa yel sam bi nekk ci biir xasida gi iqtibaas bu nekk ci biir xasida gi balaaxatu tasbih bi nekk ci biir xasida gi ak kinaay bi ci nekk ak istixaar bi ci nekk ak taswirul fànn yi nga xam ne moo ci nekk waaye ak ixjaasu raqam yi li wàllu numéro si bi nekk ci biir xasida gi ngëneelu xasida gi ak daraje ji ak li ci nekk ci ay bienfait ak li ñuy wax at taraabutul maani li ab baab bunt yi ni ñu lënkaloo fukki bunt ak juróom benn bunt bu ne sëñ bi lënkale ko ak moroom ja ak jëmmi xasida gi njëlbeen gi ak mujj gi ni ko sëñ bi lënkale ak déclaration yi sëñ bi def ci biir xasiit gi yëpp incha allah danañ ci waxtaan kon nag dañuy tàmbale ci xaside gi wax ne xaside gi sëñ bànk way ci baxru tawil xam nga fukki baxru ak juróom benn moo am ñi nga xam ne ci lañ mooy balance yi ñuy teg yi ñuy way am na ci nag baxru bu ñuy wax baxru tawil moom mooy fuulun mafaxilun fuulun mafaxilun ci baxar boobu nga xam ne mooy baxaru tawil nga xam ne moom la ñu gën a tàmm ngir tàgg nattu ci moom lañu ko gën a tàmmee baxar boobu nag ci sëñ bi defar xasida gi sëñ bi mi ngi defar xasida ak muxaddamaatul amda ci baxaru tawil as sahih bi nag kañ la defar xasida gi sëñ bi dafa defar xasida gi lu njëkk muy dem ci géej gi jamono yi nga xam ne du sori sanata xina sukkurika ak amati ba madada sukkurika yooyu ay daat la nga xam ne ci jamono jooju la sëñ bi jug am pasteef wax ne weeru gàmm wala bisu gàmm bu ñëwati damay def ak xasiida tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono jooju nga xam ne ca Tuubaa gu njëkk ga la ci jamono jooju la sëñ bi defaroon xasiida gi muxaddamaatul am daa mooy li muy wax lahu alayya li wajhillaahi daynu sana mustahsanin kulla aamin yowma yuxtaaru nga xam ne dafa wax ne warlu naa sama bopp at mu jot rek ci bisu gàmm gi ma defar ci ak xasiida goo xam ne aw tagg wu rafet lay doon jamono jooju nga xam ne ci sëñ bi ci Tuubaa ku njëkk ga ca la warloon loolu ci boppam jamono jooju la njëkk way xasiida muxaddamaatul amdaa way wu wi nga xam ne du sori mën ngaa wax ne diggante wasasin la ak jeysasin juróom-ñaari at yooyu sëñ bi def tubaa ci diggante boobu la du sori nag atum xaama tiba sukkurika ak sanata xiina sukkurika 1308 1309 gis nga yooyu yëpp moom la ko toppee ba ci 1310 11 at mu jot rek sëñ bi defar genn xasida gàmmoo ko am na sax ñu wax ne muxadamaat bu njëkk bi am na ñu wax ne xëy na mooy xasiida gi sëñ bi tàmbalee ci widaadi ladi xat kaana dal juudi wal xafwi yaquudu waduudan lil bishraati wa safi ma ngay wax ci bi naan walajtu xadiman fi imtidaahi muhammadan alayhi salaama man bihi xat maha nahwi xam nga lii xaw naan am daa bi ñu jàng bu dee ca buntub noonu ba mu ngi naan ilaahi rdaxan sax bi nabi wajxalan nii xadiman lahu fi sirri waljahri ahnahu ci buntub alif ba tey ma nga naan aballahu ila kawnahu feejal wara abu jahlin al abi dara waxuma yasnaw kon ca tuubaa ku njëkk ga la sëñ bi defaroon xasiida gii di xasiida ak muxaddamaat am daa ca way gu njëkk ga loolu nag am nañu ko wax waaye wallahu taala ahlam waaye li wér te wér mooy sëriñ bi yeesalaat na ko bi sëñ bi nekkee ci géej gi te mooy diggante jay sa sin ba ci Kasashin nga xam ne juróom-ñetti at yu manqué tuuti yooyu nga xam ne ci la sëñ bi nekk ci géej gi la sëñ bi defaraat xasiid ak muxaddamaatul amda yeesalaat ko nga xam ne dañoo wax ne weeru gàmmu dafa ñëw guddi gàmmu ñëw fekk sëñ bi Libreville wala Baxfali sëñ bi amul lu mu dundalee guddik gàmm gi amul kenn ku ne foofu ku sëñ mën a àndal dundal guddi gàmm fekk sëñ bi amon na ak saatu mooy paaka sëñ bi jaay ko weccaxni ko jënd ci këyit ak daa daal di wayaat xasida gii nga xam ne mooy xasida muxaddamatul am daa fii masaayat muftah loolu nag daa mel ne boo demee ci mbindum sëñ Musaa Ka loolu da nga fekk lu koy firndeel xoolal sëñ Musaa Ka wax ci gisaaw sa kuur bu géej gi ne ñu daal di dellu Bàmba fii libar wëli mu ne melas ndekete way na mu dellu way موديل واي لا مخدمات الامدا اك جسب واي ماتشو نلين حاج بو گيج جي نك مخدمات الامدا جي خا من بانك وايون سي گيج جي تا لولو بو ديمي سي بن مذكره بي سيرين سي لا ديف دنگ كو فك كرامه وان كنت عن ادري مرينتي سيني بي واخني بوبا مانك بير گيج جي لولو دنا سي ديل bayit woowu xasida googu sëñ bi nag wayaatun ci géej gi bi sëriñ bi nekkee Mauritanie fekk na bi bi nekkee Mauritanie ab diir sëriñ bi daay yónneelu ay gaal yum bàyyi woon fii ci Daarul Mannaan Daarul Mannaan mooy kër gi nga xam ne ci mu jug sëñ bi ci géej gi la digal maam Cerno mu sanc ko bi sëñ bi ñibbisee ci géej gi fépp fi mu jaar ba daaru salaam foofu yëpp sëñ bi ngan la faroon def waaye sëñ bi mi ngi dellu siwaat nag ci kër gi ci daaru ma naan ay bagages nekkoon bi bi demee ci géej gi nag fekk sëñ bi bàyyi woon na fi ay gaal yoo xam ne da koo suuloon sëñ bi yónnee ñu indil ko ko nee nañ ko ko indil jëlee ko daaru ma naan mu ñëw muttali te gaale bu mu laal suuf ba niñ ko indee gànnaar ci murtani sëriñ bi nag xasil yooyu mu jël ko di ko sotti di jox ndigal sëñ am sutu mu di ko sotti sëñ am sutu xas yi sotti ba noppi sëñ Tuubaa jël mbindam loxo mu tedd moomu xooj ko ci ak këll jàmb ko naan ndox mi léegi-léegi mu defal ci mu defalal ci sëriñ am sutu ba bis nag sëriñ bi war a sotti xas yi rek Muxaddamaatul Amdah ñu indi ko war ko sotti sëñ bi gis ko mel ne lu bëggoon xasida gi bañ a génn waaye mel ne sëriñ am sutu ba bëtam teggawoo ci xasida gi mu yër ci tuuti am na ak cofeel ci xasida yi cofeel goo xam ne ëpp na bi ko sëñ bi ne bëggul mu génn sañ am sutu di ko ñaan ngir sëñ bi bàyyi ko fi mu génn xasida xisa bu gudd la nettali nañu ko lu bare bare lii benn version lay waaye am na ci ay version yu bare bare ba ñu guddal moo tax ma waxe ko noonu waaye daal li ma ne xew sëriñ bi jox na sart sëñ am sutu ne ko boog fi ma ne mokkal fii ak heure sàngam ñu bàyyi ko fi sëñ am sutu jël xasida gi tàmbali koo jàng ba mokkal ko ba ni sëñ bi ñëwaatee ci moom ci waxtu woowu laaj ko mu ne ko mokkal naa xasida gi sëñ am su tàmbale ci sëñ bi ne ko bismillah mu tàmbale ci bopp xasida gi way wax nañ ne bi mu agsee ci buntu saa gi silaaliya foofu rek la xaw a mel ne lu xaw a taxaw tuuti waaye yàlla dimbale ko mu jaalale xasida gi tari ko ba dem jeexee sëñ bi soog koo jox ndigal mu génn mu sotti ko mu bind ko ci mbindum loxam sëñ am satu Sëriñ Tuubaa jël original ba aslu ba jàmb ko ci këll la naan ko jox la ci des Sëriñ Xamsatu loolu mooy gàttalu nettali bi wax naa ne nag am na ay version yu bare bare bare ngir kenn ku dégg leen nga xam ne bii benn version la ci version yi waxtu yi moo ñu mayul ñu indi version yëpp waaye xam nañ ci yu bare bare waaye tamit xisa bi nii ñu koy nettalee moomale ko Sëriñ Xamsatu gis naa ci beneen mbind ci téereb sëriñ Alaaji Mbàkke bi moom itam mu tudd xisa boobu moom itam askane la ko sëriñ Moussa Alima booy wax histoire nag wala booy wax dara boo bëggee maano version yi ci am yëpp da nga indi bu ko defee nag kiy déglu wala ki seetaan moom mooy xool bi mu ci jël waaye xalaa kulli daal comme ci muxadamaat am daal wax lu ci dañ ko wax am na wax ne sëñ am am na ñu wax ne sëriñ Moussa Alima boo demee ci téereb sëñ Alaaji yi da fekk moom mu tudd sëriñ Moussa alima kon loolu leer na kon day mel ne teewul lii mooy ñaareelu yoon mooy ñaari yoon yi waaye téwul nag biñ demee ba ci bi sëñ bi nekkee ci ci xaama xak sasin xam nga fee sëñ bi daa jox sëñ am rek mu sotti ko waaye yokku ci dara ci murtani waaye biñ ñëwee ci nag sëñ bi da ca daa yee salaat xasidi gi laalaat ko geneen laal muy kon muy ñetteelu laal kon gis nga xasida Muxaddamatul amda, bokk na ci ñetti xaji xasida yi xasida ñetti xaj la señ tuba mako xajal bu xam lu ñëk geej gi jamono geej gi ginaaw geej gi ginaaw geej gi mo tamale ginaaw aama shahinna bi karamin nga xam ne ci mujeentelu ganar la wala ci ñaarel at ci ganar la kon misin señ bi nek ganar, misin señ bi nek ci yeen kon fekk na ginnaaw xama saxin naa bi karim moom la kon xasiid ak Muxaddamatul Amdah moom am na tawféexu bokk ci xasiid yu njëkk géej gi bokkaat ci xasiiday géej gi waaye bokkaat ci xasiiday ginnaaw xama saxin naa bi karamin moo tax xasiid gi doy waar moo tax mu am doole ndax day boole ñetti maqaama yépp ndax xam nga ne xasiid yu jiitu géej gi am nañ seen maqaama bopp xasiiday géej gi am nañ seen maqaama bopp masalan sëñ Tuubaa nee na mboolem li ma bind ci géej gi yëpp mi ngi bokk ci kim taanu Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam te loolu mooy lim tàmbal lim bind ci xaama jëg sin ba ci xaama jëg fukki at yooyu nga xam ne sëñ bi moom lay wax fukki atu tumurank yi nga xam ne day mel ne mooy yoonu géej gi juróom-ñetti at yu manqué tuuti ak juróom benn weer yi mu def daruma naan ak at mu njëkk gànnaar ñaareelu at ba loolu moy fukki at yi nga xamne sëñ ci nee na mbollem limu fi bind mi ngi bokku ci kimtaanu Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam wax na ne lim bind ci geeg gi yëpp suñu borom def na mu am mu tàmpe mbooleem maqaamay gaay yu bax yi waxe khasire ginaaw geeg gi tamit sëñ ci nee na lul alquran ak hadith khasir yoyu ñoo la kawe khat khayr alquran wal hadith xat ta amna barke bu ci nek bo xamne wul ci yeneen xasiida yi kon xasida ak muxadamaat am daa am na ñetti maqaam yi yëpp maq muxadamaat bii ñuy waxtaane nag mooy bii ñuy jàng nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko woyaatee jolof ci xaama vingt cinq nga xam ne xaksasin jooju dar boobu sëriñ bi juñu na ko fa bari ci xasida gi nga xam ne da koo def ay kot waaye leeral na ko tamit waaye leeral na ko ba tey ci biir xasida gi bu dee li mu codé nga xam ne buñ ko codéwul doo ko xam sëñ bi indi na bayit wi li seen xarsi xad aslamtu kulli bi jaaxikum nga xam ne hauk bi jaaxikum ak kaafu kulli ak siinu aslamtu ak siinu xars moo lay jox